Louvain antigraisseuse soxna Nafi Fallou Fall euh, di borom xam-xam bi yàlla baaxal ci wàllum seet euh, dalay seetal ci alxuraan ndox euh, suuf waaye damul ci loolu yaw mi bëgg bayra yow mi nga xamante ni nag dañu laa sànni korte góor ak jigéen yi nga xamante ni dañoo bëgg a sëy yow mi ne ci diaspora bi bëgg li nga xamante ni moo di kayit waaye yow mi bëgg a raxas sa yaram ci eau miracle bi nga xamante ni nag na fi Fallou Fall yor na ko waaye yamul ci loolu yow mi bëgg ci ndomba yu baax yi soxna Nafi Fallou Fall. maa nga ci nga jokk à ak mom ci numéro yi ma lay bëgg jox 77 551 34 82 wala nga wakoti ci 77 033

Mm-hmm. like dafa mus a nekk like mm-hmm. sama sama doom sa doom la soo loolu bu mu amee dafa ma ne paa yow yaa may maye waaye sama parent mm-hmm. so euh, euh, pap si balaa may xama affaire moom suma booy woon si te dama ko gis ñoom ñaar ñu xam nga lu am solo ci àdduna ñaari nit yu mun toog waxtaan comprendre te je crois que chance boobu lay am parce que bu ñu doon marié dama leen hey yéen ñaari amuñ ngeen jabar bu bare waaw kii am na jabar kii amul jëkkër. Mm-hmm. li ngeen waaye def ni lu big la yéen ñaa ñëpp ay star ngeen. Mm-hmm. mais est-ce que wóolu ngeen li ngeen def est-ce que vous êtes prêts. Mm-hmm. ngeen subir hit bi maanaam problème yi di waaja donc euh, vraiment wane nañ ko. parce que da ngay sentir ñoom ay xarit layu. c'est vrai balaa ñuy bëggante ko en te foog ñëpp dañuy ñaan yàlla ku dem ba am doom bu nu takk ko da sant yàlla. soo ba ci sant yàlla di leen ñaanal big and uh, yàlla na leen yàlla lafal cat quoi. c' est mm-hmm. very important c' est very very important ci man. Mm-hmm. te yàlla yàlla def lu gën ci ñoom quoi. amiin xam nga léegi Sénégal moom ku nekk na maanu rek. na maanu rek. après ku nekk euh, def laay fa. parce que képp ku ñu gis man mii nga may utiliser nii. Mm-hmm. mun nga ma laaj pour damate ma. nga dégg dara ma def. mais yow mu yoon mi ko yaa ngi toog ne ay grand bi li ma ko laaj bu xamoon li ma def démb wala bëri démb wala keroog wala sama téléphone bu ko ubbee mm-hmm. donc nit yi foo ni maanu mm-hmm. parce que képp ku lay génne sa problème Sénégal mm-hmm. ah moom moo la gën a ñàng problème foofu wallaahi bëri na mu ngi toog di la yónni di la poser question am naa ma ciey sawaay bu xamoon li ma def donc so who cares ah. end of the day um, léegi la malheureusement day fay ci loolu laa bëgg na ñëwaat ah, ñu bëri jàppee ko méchanceté ñi jàppee ko ñaan wala soxor parce que keroog gis nañ bi mbir mi amee mu juraat beneen polémique boo xamante ne ci xew mi ñu bëri jàppee ko puukarewu ñu jàppee ko wanewu ñu jàppee ko aussi euh, yàq xaalis ñu jàppee ko aussi euh, semaine deuil bi nga xamante ni Sénégal mi ngi ci woon mënoon nañoo bañ a def li nga xamante ni tey moo di xew bu toll nii euh, analyse yooyu yëpp amandoo ci xew momu noonu tay en tant que le père de Marie-Louise tey lan nga ci wax sénégalais ak nang nga ko déggé nang nga ko jangaté ben la wax ci day bi parce que ñun dañuy respecté day bi. wi mm-hmm. la affaire bi commencé. hmm soo passivité bi nga doon gis min wi pile le marie dugu hmm soo foog naa né té daw bu doon am jëkkër ji négim national la hmm ñun noko mom hmm soo ce qui veut dire que euh boobu c'est grand lo gis rek mën nga ko changer mu ñaaw. boo bëggee mu ñaaw doo gis bonheur bi doo gis yéene bi ko jëkkër bi defal. Mhm. gis yoo gisoo loolu yëpp. Mhm. tu vois ce que mhm. euh, ñun chance bu ñu am mooy àdduna mun nañ def lépp mais sëriñ si rek foog naa moom mun def dara kenn du wax. wallaahi. <laughs> ñoom daal ñoom mooy <laughs> citoyen Sénégal. ñoom noo def lu leen neex kenn du wax. donc euh, liñ koy expliqué pour ñi nga xam ne dañuy nekk puukare la. ko am na def léegi ñi ko wër ñi leen wër foog naa. papa mag yaaya mag. seen boy foog naa ñàkkunu dara. waaw ñu ngi leen di jàppale. Mm-hmm. mais c'est leur jour. waaw gaayeen da ngay dégg naan ku nekk bu mu xeeb jouram léegi ku nekk na am cent franc kii am dix mille franc. waaw ku xeebul sa noos kenn dàqalu noos. exactly léegi ñoom foo leen ko bëgg a yóbbu teg ko fa. Mm-hmm. c'est quoi le problème. ñii di noos ñooñu lan leen gënale. ñi nga xam ne ñoom noo fay nekk kin faat palaas ñi nga xam ne ñoo def mariage yu mag yi nan lay gën ne ñoom ñaar dara ay nit rek lañ ay nit lay soo ku nekk na régler problème am quoi xam nga nekk ci grand téléphone bi di wax loo xalaat mhm. après à la longue méchanceté lay doon quoi mais day bi moom dama understand man ci personnellement mhm. dama ko woo ci veille bi ne ko Marlouis mhm. mu ne ma waaw ak Pape ma ne ko def ma wa parle mu baax ma ne leen day bi mu ne ma non papa minuit lay commencé lépp Mm-hmm. musique yi lépp minuit la commencé après minuit. Mm-hmm. so loolu mënul weesu loolu. mënul weesu loolu depuis day bi problème bi xam nga la. Mm-hmm. du ñu li ñuy liggéey après problème après ah. lan mooy conséquence su onze xale yooyu dee. lan lay fekk lan lay changé ci live bi. reyoon nañ fi trois xale changé wul. 11 mhm. khalé yi léegi femme bi nekkoon enceinte léegi disparaître. Ah, te le 11 mars passé rek 11 Sénégalais dé woon nañ fi encore. waaw mi ngi noonu ba tey amul mu. exactement grand mhm. So ce que dit que léegi amul mo moo ci gën a dangereux. Mhm. mel comme États-Unis Dañu commencé nëm maanaam léegi ay meurtre ay affaire yo dootul big deal ci ñun dafa dem ba dafa normal léegi. parce que imagine nga 11 khalé bu dee. imagine nga xale yi lakk. ñu ne 3000 rek lak une seconde dafa ëpp men wallahi na ngay mun tegee xalé yoyu amu leen sax sécurité de kii de de feu. Mhm. yow foofu bu lakkoon mënu déclencher tour ndox bi tuuru fofu fay affaire bi. Mhm. imagine 3 minutes. Ah. ñii né 3 minutes rek day tek sen tal 30 secondes sen loxo ci tal 30 secondes. di dinañ xam ne metti na lool. donc son sama problème moy au lieu man dama gis débat yi ñu wax yëpp kenn waxu ci exactement mhm. système bi nu mu feelee. maanaam da ngay tabax hôpital boo xam ne amuloo ay moniteurs yoo xam ne. monitoring yoo xam ne lakk bu amee. Hmm. wala dara dina déclenché. ñu naan ma ay groupe moo lakk woon mais loolu seen mini da bu un milliard amuloo système de sécurité. amuloo système de dégg. grand métti na de. doy na waar léegi lu mu si naqari nii lay dem xoolal femme boobu 30 heures la toog matu. Mm-hmm. fu mu mujjee kenn wax ci. du mujj fen kenn tëjul kenn saagul kenn yooxuwul lu ñu war a régler danañ réglé wul. Macky xaalis mu jox famille boobu lan la leen jëriñ. dara waaw dara. jëriñ xam lan lay bëgg ñoom. Mm-hmm. dootu amati. waaw that's the thing that's how we want to think. Mm-hmm. suñu xalaat mooy how. dañuy def problème bi dootu amee nu éradiquer problème. mais mun indi régler problème. mais ko régler mais aussi tey euh, ci ba tey dama des euh, ci li nga xamante ni tamit moo di samay frère boobu noonu Pape Abdou ak Marie-Louise ba tey ñeneen ñoo xamante ni dañuy woote woo ay sëriñ wala ay sëriñu tariax euh, génn ñoom it joxe seen version ci li nga xamante ni tey moo di mariage bi ñii nañ sëy bi du dem ñii ne sëy bi du yàgg tey nit ndax war naa waxee loolu te boo ko déggee nu mu la def. xam nga Sénégal yow hmm. bu demee ba sëriñ di toog yow sëriñ lan moo ci yoonu amul dara lu mu def naan day dem jël turu jaamu dugal ko ci biir. te sant ñu ko ko. waaw exactly am moo ko mun yow ban jot nga yow ban jot nga yow bu war a toog. Hmm. jël turu jaamu dem fanaanoo ko. pour xool am na wala amul. yow amul lu gën a important la war def lool. pour yow amul dara loo def jël ko pour dem toog ne day dox wala du dox. pour eh. give a fuck yàlla mooy moo may meen. Hmm. kan moo xam ne suba lan kan moo xam sax li ngay julli baax na. Mhm, yàlla rek da ngaa gis kenn ku dem ci kaw ñëw ne julli bi sax julli baax na. Mhm. wala boros julli baaxul de. wallaay amut. soo léegi lan moo tax ngay warin mariage day baax bu baaxul. waaw lu tax doo positif. waaw ñun on est trop négatif. Mhm. on ne pense que du mal. boo doon traité journal bi te defoo ci gisoo boo nekkee ci Facebook di xool tant que gisoo titre bu négatif doo ko cliqué. doo ko cliqué c'est vrai. xoolal li ma la wax tu fais tout pour faire un titrage pour pour gars cliquer pour nga vu mais vu que tu lan lay yak xol serigne bu am dem dem là, xaar jël temps xal wala yow li pas man es là, tu waaw là. xal wala ngay wax là, wala es là, la yow nga dem gis ne es dara ah. nga dem pour what the fuck you gonna do that est-ce que business du loo lool loolu loolu la business lay def. kon ah, kon sëriñ dañuy def seen bopp may seen bopp promotion. bu mayee seen boobu promotion. <laughs> xam nga lan la. Hmm. ñaanal nit ci nu avancé. waaw loolu de la ñu soxla. na nekk positif. <laughs> ñu lan moo tax nu bugg ay sëñ Touba sunu maamu yàgg yi day positif woon. <laughs> Mhm. tu n'entends que de bien si ñoom. Mhm. loolu moo tax nu bëgg leen mel. waaw sëriñ yi bees yi kii gañe naa coupe du monde damay gañe coupe de. who's give a fuck like Liverpool day gagné wala Sénégal day gagné loolu lu si yoonu fucking sëriñ. waaw yoonu kenn nekku ci de. waaw fuck loolu <laughs> nekku ci mel. yoon nekku ci wallaay yow demal sëriñ ñëwal toog ñaanal nit ñi. Mm-hmm. loolu nga war a def bu nekk da nga ne yow yow la dama ñaan mm-hmm. mais dugg fii ay kii maa fi dugal kii maa ñaanal kii affaire yëpp ñun mu doon care. Mm-hmm. ñaanalu dëkk bi sunu politiciens yi nekk nit jàppale am yërëmande. yërmande rek moo ñu manqué Sénégal yërmande rek moo ñu manqué Sénégal xam naa ne euh, waxtaan bi neex na te aussi maa ngi jël li nga xamante ni moo di sa temps que am na yeneen activité yoo xamante ne mu ngi ñuy xaar mais damay tëjee rek ak euh, li nga xamante ne rek moom laa doon wax sànq ci milieu cinéma bi ah, nga ñëw par euh, loo xamante ne muy suñu chef d'état yi war nañ cee jàng ak keneen ak keneen ci li nga xamante ne aussi moo di doylu bëgg sa askan ak jox sa askan li nga xamante ne aussi moo di cër ak gëdd ba lu ñu bëgg rek nga ànd ci ak ñoom tey nga ñëw wan loolu li nga xamante ne tey moo di loo jàngalaat ñi nga xamante ne sax moo di sénégalais képp kuy jiite message boobu nga véhiculer. wal euh, message bi xam nga c'était bien écrit parce que dama jël lu gën a terre à terre ba du ma ne terre à terre dama jël lu gën a terre loo xam ne jar na sax nga bàyyi. Mhm. parce que problème boo gisee sunu njiit yi day ñadd bool bi dunu bugg dem. Mhm. reyante ci politique bi fu war. Mhm. yow lan mooy njëriñu nga nekk président pour liggéey la. liggéey sa dëkk boo demee ba nga xam ne danga war a xeex pour mu jox la nga liggéey par force. Mm-hmm. est-ce que yow liggéey moo la fi indi. Mm-hmm. boo waree rayante pour yéeg ci kaw pouvoir bi foofu est-ce que loolu liggéey moo fi indi est-ce que doo ñit ñi. Mm-hmm. doo yàgg ci pouvoir ñit ñi. wala nga war a bugg nekk euh, président ñit ñi. ñoom ñaar yëpp laay wax. ñaari cas yëpp. est-ce que ñi nekk ci kaw ñi ñëwuñu ba ne léegi par force dañ fiy toog parce que. xam nga bu la dénkee ba nga yaakaar nga foog ne moom. waaw lii ñëw foofu def lu neex comme ñooñu. Mm-hmm. xam mooy suñu problème léegi lan c'est quoi la solution bi ñoom ñi sax yoon na suñu solution dañuy sóob rek. Mm-hmm. parce que télé bi yëpp débat yi lan la. tey seen di xuloo ñaayoo amuñu lu lay jàngal. chaque jour même débat yi ñëwaat. munoo ma benn programme yow mii. Mm-hmm. wax ma benn programme bi nga xam ne benn politicien. wala ku nekk opposition wala expliqué ba nga hmm. dugg sa bopp. ay faits divers lay bëgg def. <laughs> ordre du jour ay faits divers rek moo fi am Sénégal. Hmm. Hmm. xoolal dans trois y' trois mois nuy wax affaire far ba Ngom bi. moom lay tal nii. Ah. te tal nu sax yan programme la waa Bennoo wala askan lan la ñuy propose grand wax ma benn. Ah. <laughs> <laughs> On fu mu ne ay fait divers rek la ñuy. fait divers la bëgg def la bëgg def à la une fait divers du à la une. Mhm. Amérique bu nekkoon fait divers la euh, fait divers la. Mhm. kon parce que Amérique presque chaque trente secondes moom meurt wala viol. Mhm. c'est des faits divers c'est des trucs yoo xam ne du nekk à la une télé wala mu nekk à la une. Euh, euh, journaux yeeg yooyu y a des choses comme affaire hôpitaux yi. affaire policiers yi affaire boy yi sonn affaire liggéey wax ma kenn ku ñëw am solution. kenn wax fi solution ñëpp seen bopp lay waxal. Mhm. xasante xasante xasante mënuñu toog sax débat yaa ngi rappelé temps yu amee ay ministre ay jiboka. Mhm. ay Iba Der Thiaw. gannaaw da ngay am envie nekk un politicien wala un homme d' état. wala nga yàqam seen plateau. classique waxtaan ngay dégg mu kawe. Mhm. da ngay tax toog sa sa pap daf lay woo. journal vingt heures nii kaay nga déglu mais ñii boo zappee yow yaa wax lii yow yaa wax lee yaa saaga yaa on apprend rien de.

te loolu moo ñu tardeel tey suñuy. politique argumentaire boo ma bind euh, commentaire argumentaire. Mhm. nee ma grand lii ak lii d' accord ma ci ma ne lii laa foog. Mhm. parce que lu ma foog laay wax nii. waaw teguma ko fenn. Mhm. ku nekk ak sa xalaat sama xalaat laay wax. mais respecté sama xalaat bu ma ci saaga. respecté sama xalaat rek nee na ma grand li nga def d' ma ci comme des hommes civilisés may la tu as parfaitement raison jàppal bàyyi la. du la wax loolu. dañ lay saaga ndey fu mu gën a ñaawe yuuxu la fu mu gën a ñaawe mhm. parce que xam nga pour la lan mhm. parce qu'ils peuvent le faire c'est de la méchanceté mhm. gratuite parce que mun naa toog ci gannaaw clavier saaga ndey ba doyal kan moo ko mënul waaw ah, bari na mais kan moo mun argumenté bëriwul. bëriwul mun mënutoon argumenté gars yi. Ah, <laughs> mais aussi tamit beneen point bi Sénégal mais li nga def na comme ni nga ko wax message bu terre nga joxe bàyyi li nga xamante ne aussi mooy sa gouvernement ndax sa mbëggeel. waaw xam nga lu tax ma def loolu. Hmm. c'est pour jarul xëccoo wala jarul xeex quoi. Mhm. parce que gars yi booy yi booy ko bind boobu ñoom pot ak Zé mhm. fa lañ ko yóbbu. Mhm. ñu ne grave but bi mooy c'est de montrer gens laay nguur dafa relatif quoi jàppal ne post normal rek la. bu ci waree metti nga war ci rayante. mu ay trahison jàppal dama sa yoon men. dama sa yoon te grand quoi qu'on dise si nga loof dafa mu solo de. ci nga bëggeel. waaw fa la yërëmal nit mu ngi ci xam nga nit doo ko bëgg te yërëmoo ko. donc nañu jàpp près que fiction là mm-hmm. mais euh, yërëmande ak lo fu mu am. chaque jour jàmm rek lay am. chaque jour jàmm rek bo xolok sa soxna ci kër gi du neex. déedéet. Mm-hmm. so ce qui veut dire que boo leen jiboowee loof mo fa nek nekk yërëmande. Mm-hmm. so bo fa nek chaque jour day neex foofu. donc politiciens il faut nous comprendre né li ñuy def ni pour ñun la mais ñoom léegi dañuy def mel ni ñoom noonu moom mais malheureusement ñun ñoo leen di sànnil carte. ñoo leen di sànnil donc léegi xamuñu dafa mel ni ginaar bi ak nen bi xamoo lan moo njëkk xamoo ban ngay réglé. dañ leen di fal ba pare tourné waat di leen jaamu. di leen jaamu. Mhm. on se rend même pas compte de ça. day na waar léegi comment on peut régler ça grand posé naa la question <laughs> ñaari question la la posé. <laughs> qui va régler notre problème. Uh-huh. et c'est où sunu limite entre dire ce que tu penses en tant que sénégalais. en mhm. tant que citoyen à parler de politique. Mhm. faisons-nous fumer comme ça nous Nous am opinion. ñu mën le génne li suñuy nous li xol. waaw ñu xam ko sans mer. sans ah. faral on a mhm. besoin. Mhm. loolu nous sonal nous loolu nous Nous avons Nous activiste parce que nous nañu nous parce que nous sommes fenn. waaw. avons dem nous tu veux dire quoi donc les activiste nous sont

ñan noo leen di invité tamit. Mhm. c'est les journalistes noo invité nit ñi. Mhm. woo ñaari nit xam ne ñii jibóowunu au mhm. lieu nu jox loo xam ne daf ñuy jàngal dañ ciy saagante ñoom ñaar ba mu jeex tàkk. création gën dem sa yoon. doo jéggi kenn di wax di débattre programme bu mos nga gis loolu. nga teg ñaari politiciens nga teg seen débat nu xool ban moo gën a. riche ban moo gën a réalisable amul. da jox nit mu nekk di wax lii kii lii la def kii lii la def kii lii la def ba pare dem yoon en plus dañuy jël benn politicien au mu ñëw pour wax lu mu li mu réaliser. Mhm. mais li mu war a réaliser la nu bu wax. <laughs> moom la ñuy wax te def na te. te nañ ko teg pour solution. te bu nga laaj ko li mu réalisé noonu day fekk mu def fa cinq ans di la wax lan la war a def. lan la war a def moom laa lay wax de. te def na fa 5 ans waaw comprendre li ma lu garaaw laa lay wax nii. <laughs> dégg naa la. loolu mu ñëw nee la indil la. benn graphique def naa lii preuve. lii ak lii ak lii lii laa def. nga wane film yi. chiffre lay indi day aay ci chiffre. waaw ba dem ba nga réalisé yow ki nga invité wanu la réalisation yi mu def yi mu war a réalisé loolu la wax. doy na waar. doy na waar mbokk yi waaye aussi di kontaan bu baax a baax a baax ci dalalool ko rek ak jàkkaarloo ak moom ci fàttali Lamine Diaw la ñu dalal tey fii ci Sénégal Buzz 221 seqoon ak moom li nga xamante ni moo di waxtaan euh, président ex président tamit c'est un plaisir tey ñu jàkkaarloo ak yow ah, parce que xam naa ni moom sénégalais bëri na ñu bëgg ñoo xamante ne bëgg nañ jox la réew mi. waaw bu moo doon ma géré ko de. mais est-ce que yaa ngi ci tànk yooyu parce que macha allah ah, jàng bi mi ngi fi. xam-xam bi mi ngi fi gis nañ ko ci yow aussi. mais est-ce que yaa ngi ci tànk yooyu. mais xam nga trop mënoo ci nekk parce que man je suis trop véridique quoi parce que àdduna jaralu ma yenn yi. mais ñun loolu lañ soxla. donc ce qui est mais ce qui est dommage. Mm-hmm. mais billaa walaay taala yi nga yërëmande fu mu am ci àdduna. Mm-hmm. doo dégg li ma la wax demal Touba yërëmande bi fa am moo tax mu dox meen. Mm-hmm. ba pare nangu njiit. waaw demal eh, Tiwaawoon demal Ñaseen demal invité njiit boobu lay soxla. yërëmande mais sunu politiciens yi yërëmuñu kenn ils pensent qu'à leur tête. Ah. gis nga ki nga lan mooy dommage politique kii faral politicien xam nga mooy kan. Mhm. kii ko jege. Mhm. kii ko jege rek moo ci gis moom. xool li ma la wax rek ki ko jegewul mooy saaga. du mhm. noonu. c'est vrai chaque jour noonu la demee. bokkal si cercle ñiy gañe yow commencé lekk yor oto yor boo ci nekkulee commencé sànni xeer. doy na war ñoom ñëpp noonu lay mel ba pare gis nga tànk nu ñuy xalaat coalition. coalition mënoo am un vrai président. nan.

mais boole danger yooyu mooy dafa ay pacte yu ñuy teg may jox temps directeur temps directeur ce que veut dire que yow gëmuloo sax li ngay wax yow. lolu ah, loolu ñu sonal. suma ma suma su ma gagner suma ma gañee su ma gañee. waaw ay yaakaar lay dundee. Mm-hmm. États-Unis ñaari parti la. Mm-hmm. démocrate ak républicain. république ak ben xamna indépendant. c'est-à-dire yow ñaari xalaat nga am soo nga bokk fii wala nga bokk fee. amul jóge fii dem fee amul jóge fii dem fee c'est-à-dire que yéen la ngeen bokk démocrate da ngeen am même mentalité. booy nekk républicain même mentalité. su yomb na da koy xar ci digg bi rek dëkk bi da nga xëy mais fii dëkk bi ñaata parti moo fi am. bëri na trois cent mille léegi parti yooyu yëpp ñoo bëgg bokk ñoo bëgg bokk. c'est <laughs> fucking possible. <laughs> doy na waar doy na waar. Uh-huh. soo léegi doo xam léegi est-ce yow ñii li ñuy wax am na sens wala amul sens da ngay gis ku saaganteeg moom un an deux ans gis ñu kottante ñoom ñaar ñoom dañuy bugg bokk pour gérer réew na waar donc léegi ñun ñii ñun ñii ñun ñii par exemple li may wax nii xam nga ni ma saaga moom bu dee. Uh-huh. mais ñun ñii ñun ñan noonu ñuy représenté ñi nga xam ne ñun on est des sénégalais on a notre opinion. Uh-huh. on n'est pas des politiciens. parce que gàncax politique. métti na métti boo xam ne raas na il faut nga dëgër der ñeme saaga ñeme yuuxu ñeme nu lay toroxal loolu yëpp pour nga nekk politicien au Sénégal parce que chaque jour sa maa ni ñu koy détourné ci matériel wala ci xaalis wala ci sa foofu c'est-à-dire que li ngay gëm sax yow mënuloo ko exploité ñoom gëmante wuñu moo tax boo leen gisee seen fuite kii wax na ni kii wax na ni kii wax na lépp parce que suma ko gëm mm-hmm. <coughs> te ñu ngi ci loo xamante ne aussi bàyyiwuñu xel jeunesse bi aussi te jeunesse bi dañuy jàpp ne loolu mooy dëgg muy vie boobu ñoom ñuy dund te ñoom ñu ngi jàng ci ñoom. grand politicien boo xam ne day dawal ay ndam maamu oto koo xam ne amul sax certificat. yow nga dem jàng boobu kii lu tax nga dem di jàng but bi lan la pour am oto 4x4 sa life la lu tax doo jaar ci politique moo gën a gaaw demal saaga yuuxu sànnee xeer mu gañe jox la benn xaalis ne demal campagne. Mhm. donc lan lay jàngal ñun sunu sunu jeunesse bi. bàyyi leen nga dem politique gisoo booy nu bëree ci politique bi léegi te politique bu bon la ñuy def mm-hmm. parce que bi mooy saaga yooxu après gars yi jox la benn post mm-hmm. mais su politique bi am nañ ko macha allah ay ñoom jiboka ay ñoom Iba Der Thiam uh-huh. yooyu nga xam ne boo boo leen déglu uh-huh. da ngay foog yaa ngi seetaan film tellement seen wax yi dafa flow calme amul yuuxu amul saaga vous voyante macha mais fii da ngay gis ku wax ba doy na waar. na mu ñëpp benn. <laughs> macha allah maam Ali yaakaar naa ne waxtaan bi am na solo loolu ci dalal bi ñu ko dalal président euh, dama lay bàyyi rek nga joxe li nga xamante ne moo di dernière carte yi ñu daal di tàggatoo. comme li ma la waxoon rek ah. Mhm. Euh, vraiment maa ngi remercier pour mhm. donc euh, xam nga def interview Sénégal léegi dafa metti sa moo droit sax wax sa xalaat. c'est vrai. mais dama am benn côté benn instant ne bu mu nekkee doot ma ko def rek mooy kon ñooñu ñooñu nga xam ne nooy saagawaat dañuy gañe. Mhm. te du leen bàyyi nu gañe parce que ñun leen ëpp. fuuf c'est donc nous, sommes nous, cadre jeunesse ñun qui nous représente on a besoin d'être représentés. Mm-hmm. on a besoin nous voir, nous déglu ko. Mm-hmm. pas pour dire directement la politique mm-hmm. mais nous voix ñun devant important. c'est vrai. parce qu'on est 70 de jeunes. D'autres, jeunes ne parlent pas là quoi. <laughs> bon je n'ai pas nekk non affaire est là qui est, rek. On le problème mais jeune ne ba pas voilà donc je remercie remercier Marodi. <laughs> Uh-huh. parce que nous avons une opportunité. ay foola woon après mu nekk dëgg uh-huh. euh, maa ngi remercier sama parents yi sama jabar euh, support bi uh-huh. jóge États-Unis ñëw tout and euh, bi daal naa am jàmm grand uh-huh. mais bu leen fàtte ñun ñii di saaga politique ñun noo leen di fal ah. mais bu leen di fal vraiment war nañ mun a déglu suñu opinion donc je crois que lol la quoi mais laajal ma message boobu nga bindal ma ngan uh-huh. fan moy son limite entre dire ce que tu penses et être un politicien légui dañu koy laajal ñun comme ça après être. té dinañ bi question bi un politicien moo ñu ciy tontu inshallah ñom ñi nga xamante ñom ñoo ne ci kanam ñom ñoo ñu tontu ci question bi. inshallah ñu la ak contenté bu baaxa baaxa baax ci jàkkaar ak fi ci Sénégal Buzz 221. di kontaan maam Ali di ko jox dig daje ci benen numéro jërë ngeen jëf. merci. Louvain antigraisseuse soxna Nafi Fallou Fall euh, di borom xam-xam bi yàlla baaxal ci wàllum seet euh, dalay seetal ci alxuraan euh, ndox suuf waaye damul ci loolu yow mi bëgg bayra yow mi nga xamante ni nag dañu laa sànni korte góor ak jigéen yi nga xamante ni dañoo bëgg a sëy yow mi ne ci diaspora bi bëgg li nga xamante ni moo di kayit waaye yow mi bëgg a raxas sa yaram ci eau miracle bi nga xamante ni nag na fi Fallou Fall yor na ko waaye yamul ci loolu yow mi bëgg ci ndomba yu baax yi soxna Nafi Fallou Fall. maa nga ci nga jokk à ak mom ci numéro yi 77 551 34 82 wala nga 77 033 37 83.